alhamdulilahi rabilalamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uliqa walxatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radi allahu taala an asxaabi rasulillahi sala allahu alayhi wa sallama wala xawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما نوي نيب دي لين زيارة دي لين دوكيل دي ñaan borom di tabarak wa ta'ala boy ñu defal tawfiq suñ borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci téeréem bi ci suratul kahfi ne wa iz qaala muusa li fataahu laa abrahu xatta abluga majmaa albahrayni aw amdiya xuquba ñu nag dinañ ñëw firi ko ni mu rotee riyaadu tafsir bu ko defee ñu soog ci ñëw wax suñu xalaat Cheikh Ibrahima Niass dafa ne wa uzkur maanaam fàttalikul is jamono ji nga xam ne qaala Muusa Muusa ibnu Imran wax na li fataahu xalem ba xale boobu mooy Yusha ibnu Nun Yusha ibnu Nun duutoon jaamam waaye taalibe la woon bu nekkoon ak moom dong di sàkku ci moom xam-xam dafa toppoon Muusa di ko xidmaal ngir sàkku ci moom xam-xam kon loolu yàgg na diggante sëriñ ak taalibe Moussa nag def ne ko du ma noppalu mukk ci sama dox gi lu dul ni yegg naa fa ñaari géej daje ulama u zahir ne ñaari géej yooyu mooy géej ak ruum ak faris fiñ daje ca mashriq ba manaam ci penk fenkuwaayu jant ba foofu mooy majma al bahrain mu ne dinaa dox ba yegg foofu aw am du yaxu xubaa wala ma dox sama giiru jamono su fekkee mënumaa yegg foofu falamma balaga majmaa baynihima bañ demee ba jot li nga xam nga xam ne mooy boole diggante ñaari géej yooyu muy baxru ruum ak baxru faris te li waraloon loolu mooy Muusa alayhi salaam ku ne xam na ni yonent tëb yàlla la moom la yàlla yónni woon ci banu Israil waaye tamit mu nekkoon ku bari xam-xam lool mbooleem luy sariyaatu rekk teg na ko kon dara manqué wu ko ci sariyaatu dara manqué wu ko tamit ci xaqiqa waaye tamyiz yàlla mën na laa maanaam mën na la ci junju dara ngir wan la ni wa fawqa kulli zi ilmin alim ah Moussa nag ñëpp xam nañ xam-xamam ku bariwoon woon xam-xam la daan na def ay majlis di tasaare xam-xam benn bis nag benn waay laaj ko ne ko ndax am na ku la ëpp xam-xam yow Moussa ndax mën nañoo gis ci aalam bi ku la ëpp xam-xam Moussa tontu ko ne ko déedéet suñ borom subhanahu wa nag yeddee Moussa lii mu koy bëgg a def loo lim ko yeddee mooy lan mooy def ne ko waaw kay am na kenn ci suñu jaam yi nañ buñ fàtte baat bi yàlla utilisé fa wajada abdan min ibadina kon du benn nitu simple déedéet abdu la te buñ jàngatee alquran ba mu daj bu weesoo abdu buñ mufradal bu weesoo ni ko yàlla joxe yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bii alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba subhana alladi asra bi abdihi wa annahu lamma qaama abdullah gisuñu feneen foo xam ne suñ borom subhanahu wa taala kennal na ko wala bu amee yi tamit du bëri maanaam ifraadal baatu abdu jëmale ko ci benn mbindeef ci mbindeef ak yàlla yi kon fa wajada abdan min ibadina loolu tegtal la ni ci xadir du nitu simple buñ ko foog noonu déedéet su fekkoon nitu simple la rek comme niñ ko xamee suñ borom du jëfandikoo kàddu yooyu ndax ku ne xam na ni ubudiyatu rawatina ki nga xam ne dafa dem ba am taxaquq ci ubudiyatu kooku day génn sax ci cadre ubudiyatu jëm ci cadre ubudatu te xadir mi fa la yeggoon moo tax suñ boroom ne ko ba mu ne kenn ëpp ma xam-xam suñ borom yeddee ko ne ko en ah, kay am na suñu benn jaam boo xam ne xadir la tudd moo la ëpp xam-xam Moussa ne ko fan laay fekk jaam boobu sa jaam boobu fan laa koy fekk ba ma sàkku ci moom dolleeku ci xam-xam ba ma sàkku ci moom dolleeku ci xam foofu war nañ fa am taxaw seetlu ndax jàpp naa ni moo indi sa laaj bi muusa nu muy demee di sàkku ci xam-xam ci koo xam ne du yonantu gis nga xam-xam suñ borom subhanahu wa taala maanaam melo la ci melow borom bi subhanahu wa taala yàlla nag ay yaatam fu ko neex la koy def yàlla dafa am melo yoo xam ne moo ko melowoo di ko wàccee ci doomu aadama bi melo yooyu xam-xam ci la bokk mu wàcce ko ci li ñuy tuddee xel xel la doomu aadama moom muy àqulu suñ boroom jël lii ñuy tuddee ilmu wàcce ko ci àqlu muy xolu doomu xelu doomu aadama mu mën a gàttandu xam-xam alquran jàngal ñu ay aay yu bari nag yuy tegtale ni yàlla eh, jëlul léppam rek jagleel ko kenn ku dugut yonantu bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem yonantu yu fi mas a jaar rek am na lu leen yàlla jagleel waaye am na lu leen yàlla jagleelut loo xam ne jagleel na ko ñeneen kon Muusa bu fekkoon dafa am xeetu xam-xam boo xam ne rëcc na ko ci li ko yàlla yónni ñu ne ah Moussa mission am na kon amaan na sax ñu ne li muy woote du dëgg mais Moussa amul benn xam-xam ci xam-xam bi ko yàlla yónni pour mu jottali ko boo xam ne lottu na ci xam ko wala mu lottu ci jottali ko moo tax ba ko yàlla waxee loolu mu xam ni suñ boroom daf ko bëgg xamal rek wa fawqa kulli zi ilmin alim daf ko bëgg a xamal yi tamit wa ma utiitum min al ilmi illa qalila joxeefu leen ci xam-xam lu dul lu néew te xillatul xalil boobu ñu ñëpp ñoo ko bokk Moussa ci la bokk man ci laa bokk keneen ak keneen ak keneen ci la bokk léegi nag e, musa suñ boroom xamal ni ko waajakat boo bëggee xam fi mu ne doxal boo doxee dem ba yegg fi nga xam ne mooy maal majmaal ni fi ñaari géej yi daje dina génn maanaam boo demee ba foofu di maanaam di nga gis waaja bu ko defee nga dolleeku ci moom xam-xam Moussa di dox ba mu jógee nag di dem mu ànd ak xalem boobu ñuy wax Yusha ibnu Nun taalibeem la woon ñu ut yóbbal yóbbal bi utoon nag mooy jën jën wi dee na ndax génn na ci ndox mi Cheikh Ibrahima Niass nee na fii mooy njëlbeen nag doxu Moussa maanaam Moussa ku xam yàlla la ku yeggoon ci yàlla la waa dafa am ñaar yu ñuy tudd maanaam dox ba yegg ci yàlla wëlbatikuwaat di dox ci biir jëm yàlla ji moom la Moussa di def nii tey moom la Moussa di def nii tey muy lu am solo loo xam ne ñépp war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax euh, gis nga Yusha ibnu Nun ibnu Abbas radiallahu anhu dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni Moussa yonentab yàlla la Moussa rasulullah dafa doon fàttali nit ñi ab bis ba gaañi seen rongo ñi di tuuru seen xol yi nooy nepp dellu ci yàlla benn waay dab ko ne ko yow ya yaa yonentab yàlla ci kaw suuf ndax am na ku la ëpp xam-xam ci kaw suuf musa ne ko déedéet yàlla yeddee ko loolu yàlla yeddee ko loolu eh, ci wax ji wax ni man maa fi ëpp xam-xam léegi nag ba ko yàlla yeddee loolu xamal ko ni am na koo xam ne mi ngi ci maj ma bahrain kooku defal naa ko xam-xam boo xam ne jox naa ko xeetu xam-xam boo xam ne amaan na mën nga koo am sax waaye buñ la ko firilul doo ko dégg buñ la ko firilul doo ko dégg mu ut yóbbal jën comme ni ko Ibn Abbas nettale eh, Ibn Abbas nee na eh, maanaam mu ut jënam ànd moom dem léegi nag Cheikh Ibrahima Niass nee na Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu nee na Moussa foofu mooy njëlbeen ak tarbiya Moussa génn na ànd ak xale bi ne ko du ma dakkal sama dox bi fekk yegguma ci majmaawul baxrey ni fi ñaari géej yi daje muy géeju faris ak géeju ruum ci charqu ba wala boog maanaam firi bu ma ko njëkk firi la ko ulamaul zahir yu firé dañuy wax ni aw majmaal bahrayni wala boog fi nga xam ne bahrul ulum al zahira wa wa bahrul al batina ñoo fa daje fi nga xam ne géej ak xam-xamu zahir ak xam-xamu batin ñoo fa daje alquran ne fa lamma balaga majmaa baynihima bañ demee ba yegg fi nga xam ne foofu la ñaari géej yi daje moo xam géeju faris ak rum la wala nga ne géeju sharia ak ak xaqiqa nasiya xuutahuma ñu fàtte seen jën wi ndax foofu moo nekkoon seen yemukaay yusha ibnu nun fàtte na jën wi fañ yegg nag ci géej gi géej gi dafa yëngu ndox mi dugg ci gaal gi laal jën wi dee woon jën bi dundaat tëb dugg ci ndox mi fekk na boobu guddi na ndax ba mu guddee gi day yëngu ba géej gi nag ndox mi dugg ci gaal gi laalaat jën woowu nga xam ne dafa dee woon dafa woowoon jën wi daal dundaat kon loolu beneen kéemtaan la bu yàlla di jàngal Moussa dina leer géej jën bi yeew euh, dundaat dellu ci géej gi léegi nag géej génn ak Moussa bi nga xam ne dafa wowoon koŋ ndax dundatutoon génn na ci ndoxam mi ba nga xamee ni yegg na fi ñaari ndox yi daje dafa wuri ci mànditeem gi nga xam ne moom la màndi woon wala boog dafa yeewu ci maanaam dafa wuri ci euh, ximmaliku ci xëm gi nga xam ne moom la xëmoon moom jënd lan moo ko sabab mooy alquran dafa ne falamma jaawaza bañ demee ba dépassé place ji leen yàlla waxoon man muy majmaul bahrayni mooy zalikal makan dépassé nañ ko ñu dem ba ba romb ko léegi nag waxtu añ jot Moussa ne Yuusa aatina gadaana indil ñu suñu añ yu ñu añ laqad laqina min safarina hada nasaba daj nañ coono ci suñ suñ tukki yi Cheikh Ibrahima daj na coono ñu ne ko lu tax mu ne Moussa sonnut mukk fekk maanaam coono gi mu ngi ko dajee ba mu weesoo ma miixa bi ko yàlla joxoon maanaam bërëb bi ko yàlla waxoon ni boo demee di fa fekk waaja ba mu ko rombee rek la commencé yëg coono ñu xool jugee nañ seen dëkk nekk ci ndox mi ci ndigalal yàlla yéeguñu benn yoon coono waaye bañ demee ba romb fi nga xam ne mooy majmaul bahrayni dox lu tollook genn wàllu bis ci lañ commencé di jàmbat coono Cheikh Ibrahima ne li annahu sayru ila gayrillah ndax fi mu toll nii ñu ngi dox jëm ci lu duhut yàlla maanaam dox nañ ba dépassé ndigalal yàlla ñu ngi dem ci li nga xam ne seen coobare moo leen fa yóbbu wala seen ak ñàkk xam mu nettali ne muusa wooroon na ñeen fukki guddi ak bëccëgam muy juróom ñeen juróom ñett fukki bis woor na moom muusa dafa daan woor bëccëg bàyyi guddi maanaam ñun suñu koor ñun dañ daan wo dañuy woor bëccëg bàyyi guddi waaye woor ak Moussa dafay woor guddi woor bëccëg mu def ko ba mat ñeent fukki fan te mësta yëg xiif xam ngeen lu tax mësta yëg xiif mooy loolu mu doon def def ci jublu woon pay borom bi subhaanahu wa taala te xoolal fi nga fi mu bi subhaanahu wa taala lu tolloog ci doxu genn wàllu bëccëg commencé naa yëg coono di laaj añ wi aatina gada laqina min safarina haza nasaba moo tax Muusa wa ma shaka illa baada an jaawaza al mahal alladi fihi matlubuhu alladi huwa alxadir jàmbatut mukk ak coono wala ak xiif lu dut ginnaaw ba mu weesoo bërëb bi ko yàlla joxoon muy majmaawul baxrayni fa nga xam ne càkkutéefam fa la ko war a jëlee te ba mu war a ba muy ba ji mooy kii nga xam ne mooy abdan min ibadina di jaam ci jaamab yàlla yi e, muy xadir qaala araayta is awayna ila saxraj mu ne ko eh, xanaa gisuloo ba ñu yéegee ci doj wa fa inni nasiitul xuuta man de ci laa fàtte jën wa te jën wi dara fàtteloowut ma ko illa cheytaan wa ma ansaanihi illa cheytaanu an azkura moo ma fàttali moo ma ko fàtteloo ba ma bañ koo fàttaliku ndax kuy dox ci lu duhut maanaam képp koo xam ne yaa ngi dox te dox wi ngay dox àndut ak ndigal yow moomu ci coono rek ci ngay dëkk te ndigal li ko yàlla joxoon mooy demal ca majma al bahrain mu ne bañ defee loolu nag wattaxasa sabilahu fi l bahri e, saraba wala ajaba e, jën wi daa di jël yoonam ci géej gi Moussa daa di yéemu nag Moussa daa yéemu mu gis ni Euh, kii nga li nga xam ne mooy jën wi dellu na ci géej gi kon dangay gis ni arrujuu ilal asli hayyinun dellu si sa cosaan dafa yomb trop musa xam ni nag ah ndekete man kat dépassé naa limite yi faaw ma dellu si sama cosaan xalem la nga xam ne mooy Yusha ibnu Nun moom li ko fëkk mooy jën wi dee na moo tax bàyyit ci woon xel jàppoon na ni du mës a dem waaye jën wi dafa dellu ci cosaanam muy ndox Moussa nag ne zalika ma kunna nabri lii rek lañ doon wut ñàkk nañ jën wi kon nag e, loolu tegtal la maanaam alaamatu wujudi muradika al mahal alladi tafqidu fihi alxuud wa huwa alladi mu ne ko suñu càkku téef kat fañ ñàkkee jën wi rekk foofu mooy suñ càkkutif ndax jaam bi bu jugee jëm ci yàlla fekk ñàkkul lim am yëpp ñàkkul boppam ñàkkul lim am yëpp bu yegg ci yàlla fartaddaa nag ñu dellu ala asarihima ci seeni jeexital xasasan di topp jeexital yi nga xam ne moom la jën wi am ci ndox wi bañ delluwaat Eh, ila al makaan alladi taraka fihi alxut ci bërëb bi nga xam ne foofu lañ bàyyi jën wi fa wajada abdan min ibadina ñu fekk benn jaam suñu jaam yi mooy xadir buur nag ca Aboubacar Diallo yàllaay waxal boppam yàlla ne moo ne moo ne jaam boobu di xadir aataynaahu rahmatan min indina jox nañ ko yërmande bu tukkee ci ñun yërmande dinañ koy tuddee xam-xam yërmande dinañ koy tuddee euh, nubuwa yërmande dinañ koy tudde yeneen ak yeneen ci ñi nga xam ne ñooy mu fassiruna moo tax mu fassir yi dañuy wax ni aataynaahu rahmatan min indina ay nubuwatan fi l qawl wa wilayatan fi qawli l axarin wa huwa sahih maanaam dañuy wax ñenn ñi dañuy wax ni xadir rahma bi ko yàlla jox mooy daf ko def muy ab yonantu ab nabiyu maanaam ku solo te yónni wuñ ko ñenn ñi wax nañ ko waaye loolu wérut li wér mooy waliyu yàlla la te loolu moo wér euh, boo demee ci tafsirul jalaalayni di nga ko fekkee mu waxee ko noonu kon loolu euh, lu am solo la buur nag ne wa allamnaahu ñun ñoo xamal kii di xadir ilman xam-xam boo xam ne min la dunaa ci ñun la jógee mësta jaar ci kenn kon xam-xam boobu Moussa nu mu koy xamee xam-xam boo xam ne mësta jaar ci kenn Moussa munut koo xam fekk xamaluñ ko ko wa allamnaahu ñu xamal ko moom xadir ilman xam-xam min la dunaa bu tukkee ci ñun xadir mii nga xam ne mooy jaam yàlla bi yàlla daf ko jox yërmande jox ko xam-xam xam-xam boo xam ne xam-xam ilman la duniyan la te xam-xam boobu mooy xam-xam bi nga xam ne kenn du ko sax kenn maanaam kenn du ko sax kenn amul benn sëriñ bu mën a yenkawal taalibeem xam-xamu la du nii amut xam-xamu la du nii kenn mënu koo jëlee ci téere waaye xam-xam boobu mooy lan innama huwa min indillahi tabaraka wa taala wa mahalluhu qalbul abdi ci yàlla lay juge te bërëb bi muy taataanu mooy xolu jaam bi suñ borom subhanahu wa taala tudd na juróom-ñaar ci ay jaamam ñoom ñëpp daf leen xamal xam-xam goo xam ne daf leen ko daf leen ko xamal directement jaarul ci kenn te kenn ku nekk ci ñoom jot na càkkutéefam ci xam-xamam la jaar jox càkkutéefam bu ci njëkk jàppal wa allama aadama asmaa aadama daf ko xamal tur yi aadama am lu ñuy tuddee xilaafa kon xilaafatoog aadama ak sujjóot bi ko malaaka yi sujjóotal mu ngi ko jëlee ci xam-xam bi ko yàlla tamal muy asmaaw yi ñaareel bi mooy wa allama al xadir al ilma laduni mu xamal xadir xam-xam bi nga xam ne ilm muy xam bu jugee ci yàlla direct di toq ci xolam mu ne fa wajada tilmidan misla Moussa wa Yusha mu am taalibe bu mel ni Moussa ak Yusha du njombe Moussa jàngee ci xadir du njombe du du du du du lot ak Moussa du kéemtaan ak euh, xadir waaye kattanal suñu borom subhanahu wa taala la ak kéemtaanal suñ borom subhanahu wa di wane ni moom rekk moo yelloo xam-xam benn jaam du def tasarruf ci xam-xam lu dul ci ndigalam ñaar ñetteel bi mooy kii nga xam ne mooy euh, daawud suñ borom allama daawuda sanata labuusin xamal na ko ni ñuy defaree mbubbi koŋ ci weñ nooyalal ko weñ yi wa allama suleyman mantiqa tayri mu jàngal suleyman ba mën a waxu njanaaw yi di wax ak ñoom yi tamit ñu gis ni daawud yàlla may na ko nguur gis ni suleyman yàlla may na ko jinne yeeg nit ñi ñëpp di ko xidmaat mu jàngal yuusuf tawil ahlaam firi ay gént ñu gis ni yuusuf mujj naa nekk buuru misra mu jàngal isa alkitaaba wa tawrata wal injil ñu gis ne isa yàlla mayoon na ko muy dekkal way dee yi ci ndigalam mu jàngal yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shariatu wax ne ko wa allamaka ma lam takun taalam ñu gis ni yàlla may na ko li ñu tuddee ashafaatul kubra muy tinu mboolem jaam yi moo tax bàyyi dafa ne borom bi subhanahu wa taala daf ñuy nettali qissa yi xamal ñu ni moom moo xamal jaamam bii nga xam ne mooy xadir xam-xam boo xam ne ci moom la jóge te xam-xam boobu mooy ilmul baatin mu ne mu ne Muusa nag mooy xalifa yàlla ci jamonoom mooy ki gàddu woon risaalatu te wa huwa aala al anbiyaai maqaaman baada baada ibrahim yonentu yi fi jaar yëpp ginnaaw yonentu yàlla muhammadin sallallahu ak yonentu yàlla ibrahim Moussa moo ci martaba moo ci ëpp maqaama ñu ne mu ne wa kallama allahu Moussa taklima yàlla wax ak Moussa kaddu ci noppi Moussa mu ne waaye ànd ak loolu yëpp xadir mii xam na ci xam-xam loo xam ne Moussa xamu ko ba Moussa xamee loolu nag dafa ne ko alquran ne qaala lahu Moussa hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda dafa sàkku ci moom ndigal ngir topp ko ngir mu jàngal ko ci li ko yàlla xamal ci tarbiya moo tax Moussa dafa génn mu mu waxoon xalam bi ne ko duñ dañ di dox fekk yegguñu ci majmaal bahrayni ñu ko olama zahir yi firee mooy géej ak euh, nu mu tudd chariatu euh, ak géej ak olama euh, zahir géej ak faris ak géej ak ruum olamaul batini ñu firee ko ñoom géej ak xam-xamu charia ak géej ak xam-xamu xaqiqa buur ne falam ma balaga majmaa bay nii bañ demee ba yegg foofu ñu fàtte seen jën wi Yuusa ibnu noonu fàtte na Muusa fàtte na géej gi mooy géej ak dund guddi na jën wi ndox wi laal na ko dellu na ci géej dundaat loolu tegtal la bu bees ci Muusa ne am na luy dee ci moom mooy lan mooy yëg bi mu yëg boppam ci xam-xam yëg yéem maanaam ojbu bi mu def ojbu yëg bi mu yëg boppam ci xam-xam mooy li dee ci moom kon loolu nag faaw mu dundalaat ko ci dindi ko ci boppam ba mu set wecc kon nag loolu moo waral Muusa sàkku ci kii nga xam ne mooy xadir mu ànd ngir ñu ànd ngir xadir jàngal ko li nga xam ne moom mooy euh, xam-xam bi ko borom bi subhanahu wa jox muy xam-xam bu am solo moo tax dafa sàkku ci moom ndigal ne hal attabiuka ala an tuallimani mimma allimta rusda ndigal lim sàkku ci moom mooy dafa sàkku ci ndax dig ma may ndigal ma topp la nga xamal ma ci li la yàlla xamal ci xam-xam bàyyi ne Moussa dafa sakku ndigal ci topp ki nga xam ne mooy xadir ñëw rek topp ko déedéet waaye dafa sàkku ndigal hal astabiuka xam nañ ni hal googu hal ak talab la dafa sakku ci moom ndigal ci topp ko ci ànd moom ngir jël ci moom xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam la duni xarit tontu ko ne ko innaka lan tastatia maaya sabra muñ ànd ak man wa fa tasbiru ala ma lam tuxit bi xubra nan ngay ci loo xam ne yow mënoo koo xam naka ngay muñee ci loo xam ne mënoo koo xam ah ba loolu amee nag nga gis ni xadir nag bëgg koo chartal ne ko charte bi ma lay tegal mooy soo ko soo soo ko mënee maanaam acharte alladi sawfa euh, ushrituhu alayk lan tutiqahu abadan charte bi nga xam ni moom laa tegal doo ko mën a attan mu ne ko charte bi nag mooy bul ma laaj dara laa tasalni an shay'in ndax moom xam na ni moo gàddu raay shariatu ci jamonom te xadir lim yor ci xam-xam dafay kontrante shariatu bi Muusa indi maanaam Muusa day gis ni kii dafay jalgati shariatu moo tax Muusa amul droit gis lu méngoowut ak shariaam ba pare noppi ci moo tax mu ne ko mënoo muñ ànd ak man kon lim ko wax lu yenu maanaa la Moussa mënoo muñ ànd ak man parce que mënoo gis may def lu wuuteeg sa charia ba pare nga noppi ci te doo ci wax kon xam na ni Moussa faaw mu laaj faaw mu laaj la budda an yasal Moussa mësta inkaar nag laajam yu bari yépp incar bokk ci contre bañu ci bokku ci ndax inkaar jarima bu mag la te bàkkaar bu mag la ci yoon te te yonantu yi ñoom dañoo nekk ay maasum mënuñoo def bàkkaar te inkaar rek inkaar weddi weddi loo xam ne dëgg la bàkkaar gënu ko rëy te yonantu yi ay maasum lañ duñ def bàkkaar laaju Muusa yi maanaam Muusa lam doon wax yépp ay laaj la kese waaye chartal nañ ko ci njëlbeen ak mbir bi ne ko bul laaj mu tontu ne sa tajiduni insha allahu sabiran wala asi laka amra di ma fekk bu soobee yàlla ma mën muñ waaye duma la moyal ndigal Moussa dafa ne sa yasbir wala yuxaalifu amra cheikhihi fa ataahu chart ne ne xalsat muñ te du mooy ndigalal sëriñam ñu jox ko chart yi ah xadir ko fa in ittabaatani boo ma toppee fala tasal nii bul ma laaj an cheyin ci dara xatta uxdisa laka minhu zikra ba keroog ma la koy leeralal lii nag mooy sart yi sëriñ si teg ñu ngi ko tëbbee ci ki nga xam ne mooy ñu ko tëbbee ko ci ki nga xam ne mooy xadir mooy sart yi xadir tegal Moussa ne kat bul ma laaj لا أنه لا يسأله عن شيء مجرد سؤال فقط فقط لا يسأله عن شيء loolu la ko Cheikh Ibrahima waxe te Moussa moom mënta muñ mënta muñ ba mënta muñ nag mu wuuteeg charte yi sëriñ bi tàqalikoog moom ne ko hada firaqu bayni wa baynik ñu gis ni Ismaïl alayhi salaatu wassalaam moo gënoon mat Muusa ndax ba ko baayam waxee ne ko dama lay rey loolu xeetu tarbiya la dafa ne ko sa tajidu nii insha allahu min assabirin di ma fekk bu soobee yàlla ma bokk ci way muñ yi moom dafa boole boppam ci way muñ yi mu ànd ak nitu yàlla ci barkey nitu yàlla boobu ci la ko yàlla mayee mu mën a muñ Moussa nag tajarrada wahdahu maanaam dafa toog rek ne moom mooy muñkat bi ba tey mi ngi ci lam nekkoon rek mooy boroom xam-xam bi tey mu toog ne mooy muñkat bi sa tajidu ni incha allahu saabiran di ma fekk may woy ma may muñ ma fekk may muñ boolewul boppam ci muñkat yi ci jumlatu muñkat yi waaye dafa ne moom mooy muñkat bi jël mbir mi yëpp ràngoo ko moom kese a ah, moo tax itamit munut ko muñ ndax eh, ndax loolu dafa bokk ci mbootam toppe ndax asraaru soxba dafa feeñ ci qadiya Moussa bi ñaari yoon bi ci njëkk mooy Moussa dafa ne sa tajidu ni insha allahu saabiran te muñut dig ma fekk may muñ te muñut kële nga xam ne dafa wax ni sa tajiduni incha allah min assabirin mu yonent yàlla ismail gis nañ ni muñ na dafa boole boppam ci woy muñ yi ñu gis ni Moussa ak Haroun ñoom des nañ ci tiix gi ñeent fukki at arbaina sanatan yatihuuna fil ard te Moussa ak Haroun ñu ngi bokk ci tànneef yàlla yi ñu des ci boobu le mbugal lan moo ko waral lima kaana fi suhbatihima aadaa allahi tabaraka wa ndax àndante biñ àndante ak noonu yàlla yi moo tax yàlla musal leen mbugalam euh, amma nag noonu yàlla amma aadaullah fa bi suhbati Muusa istasqaw fa saqaahumullah ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo doon noonu yàlla yi ci banu Israil àndal àndaale bi ci la barke feeñee bañ sàkku ak nandal yàlla nandal leen ci moom lañ sàkkoo euh, ñam yàlla leexal leen muy ñam woo xam ne day wàccee ci asamaan ci moom lañ sàkkoo koddaay yàlla sàmmee leen ay koddaay yoo xam ne du xotteeku te du ràpp mukk ñu sàkku ci moom ak leer yàlla euh, dóor ci ñoom li nga xam ne mooy leer wi nga xam ne moo leen dugal ci tiif googu kon ñii da ngay gis ni àndaale biñ àndaale ak Moussa moo leen may barke waaye ñële àndaale bi nga xam ne àndaale nañ ko euh, maanaam Moussa àndaale bim àndaale ñoom moo xañ Moussa barke léegi nag alquran ne daf ko tegal charte ne ko boo ma toppee bul ma laaj fekk waxuma la fan talaqaa nag ñu commencé di dox ci tefes gi xata ida rakiba fi safinati bañ demee ba war gaal gi ñoom ñëw nañ ci gaal gi bañ waree gaal gi e, ñi nga xam ne ñoom ñoo moom gaal gi ñoom yoruñu woon dara ci xaalis waaye xadir xamante na ak ñoom ñu yéeg gaal gi gratuitement bañ demee ba yegg ci digg géej gi xaraqaa xadir sikkal gaal dafa jóg jël semmiñ bi dóor ci digg gaal gi gaal gi bënn ndox mi commencé dugg ci gaal gi gaal gi commencé seey ci biir ndox mi léegi nag waaye suñ borom subhanahu wa dafa wattu gaal gi wattu na ko ñenn ñi wax nañ ñu ndox dugg na ci waaye ñi ci des nee nañ ndox dugg ci waaye yàlla wattu na ko waaye Muusa jëf ji mu gis dafa gis ni wuute nag sharia ànd ak liñ ko sartal ne ko bul wax yépp dafa ne axraqtaha li tu li tuxriqa ahlaha laqad jita shay'an imra ndax da ngay bënn gaal gi ngir labal ñi nekk ci gaal gi ah xam nga ni def nga mbir moo xam ne mbir te hmm, mbir mu doy waar la ah laqad fi jita shay'an imra lii du boo xoolee Moussa waxam yi yëpp ci forme laaj lay jëm day laaj rek waa ji tontu ko ne ko alam aqul laka innaka lan tastatia sabra ndax waxuma la woon ci njëlbeen ak mbir bi ne yow mënoo muñ ànd ak ma nasitu lu ma fàtte maanaam laaj wu njëkk wi nga xam ne Moussa laaj na ko sabab bi mooy anna Moussa nasiya anna alxadir ishtarata alayhi an laa yasalahu shay fàtte na ni sëriñ bi sartaloon na ko ne ko bu ko laaje dara mu ne ko wala turxiq nii min amri usra bul ma togg ci sama mbir mii benn jafe-jafe fantalaqaa bañ jugee ci gaal gi nag ñuy dox ak seeni tànk hatta ida laqiya gulaaman bañ demee ba dajeeg benn xale fa qatalahu xadir daal di dañoo fekk ay xale yuy foo xadir jàpp ci benn xale te xale boobu moo ci gënoon taaru mu rey ko ren di ak paaka nga ñenn dafa dóor bopp bi ci miir bi mu dee comme niñ koy waxee rek waaye ala kulli xaal xadir rey na ko ba ko reyee fekk xale la boo xam ne majeure gut hada kabiratun fi sharia loolu bàkkaar bu rëy ci sharia gi Moussa yenu moo tax Moussa mënu koo muñ li ko waxoon ni li liko waaji ko li ko waa ji waxoon ne ko innaka lan tastatia maayi sabra ba tey moo fi ne Moussa ne ko aqatalta nafsan zakiyatan bi gayri nafs ndax da ngay rey bakkan bu defu dara bakkan bu rey bakkan nga fas yéene ko rey lu tax ba tey day laaj mu ne ko laqad jita shay'an nukra tey nag irtakabta shay'an kabiran def nga maanaam def nga njombe lu rëy ci laaj wi nga laaj maanaam ci ci jëf ji nga jëf jëf nga njombe rëy maanaam rey gi nga ray bakkan ci maanaam def nga njombe lu rëy ci jëf ji nga jëf qaala alam aqul laka innaka lan tastatia mahi sabra xadir ne ko ndax waxuma la woon ci njëlbeen ne la yow munoo ànd man dox mu ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni su ma la laajatee beneen yoon nañ dagg suñ kàndoo musa Moussa nag rus na ndax laaj na ñaari yoon léegi nag am na kersa ànd li nga xam ne mooy mbëggeel bëgg bëgg bëggam xemmem teefam yëpp ci àndaale xadir waaye am na kersa ndax dem na ba ne ko in sa'altuka an shay'in ba'da hadha fatrudni euh, bu ma la laajee beneen laaj ginnaaw ñaar yi nag ma dàq ñuy dox nag ba yegg tat euh, Moussa ne qad bala euh, xadir ne ko qad balagta min laduni uzra léegi nag fantalqa ñuy ñuy départ xataa ida ataya ahla qaryatin bañ demee ba yegg ci benn dëkk wax nañ ni mooy antakiya bi nga xam ne fala xabibu najaar dëkkoon mu ne istata istatama ahlaha ñu sàkku luñ lekk sàkku ku leen ganale waaye fa abaw an yudayifuhuma ñu bañ leen a bañ leen a dalal ñu daal fanaan ci biti bañ xëyee nag xadir daa di gis fa wajada fiha jidaaran ñu gis benn miir boo xam ne yuridu an yanqadda xaw tuut mu daanu miir bu gudd la wax nañ ni guddaayu mi ngi toll ci téeméeri xasab téeméeri zira fa aqaamahu xadir taxawalaat miir bi Moussa jàpp ko ci loxo nag maanaam ne ko law chita la taxasta alayhi ajra ñii kat ñëw nañ fi ñu bañ ñu jox ñu lekk bañ nañu jox suñu dëkkal ah yow euh, ñii xañ la lii laaj leen ak njëg ci li leen defal ñi xadir ne ko haza firaqu bayni wa baynik wa baynak lii mooy teqale bi dox sama digganteeg yow ndax sartaloon naa la ne la bul ma laaj dara te yow mënoo ko muñ kon tey fii la ñuy tàqali ko kii yonent la bu ñu yónni mi ngi tàqalikoog sëriñam ngir lim wuuteeg ay sastam loolu tegtal la ci ne kat ñi wax ahlullah nitu yàlla yi laa yasxabuun laa yusxabuuna illa bi salbil iradati wa taslim duñ àndanteeg ñoom lu dut nga jël sa namm-namm yépp ak ci ñoom waaye nga jébbal leen seen lépp bu ko defee nag mu ne ko kaay sa unabbiuka kaay ma xamal la bi tawili ma lam tasti alayhi sabra ci firig li nga xam ne mënuloo ko woon muñ xadira ngi nii di tawil xadir yu awil lahu ma lam yastati alayhi ma lam yastati an yasbirahu mu koy firil li nga xam ni mënut ko woon muñ te loolu mbóot la ci mbóotam yàlla yi ndax taalibe bi su fu mu mënta yegg ci mat al murida wala balaga ma balaga min al kamal wal ilm su teewee ci kanamu sëriñam maanaam taalibe fu mënti yegg ci ak mat bu teewee ci kanamu sëriñam du tus maanaam xam-xam bu mënti am li ko koy yiir mooy teew bi mu teew ci kanamu sëriñam moo tax Moussa am problème rek la ñetti masala yi masala bu njëkk bi am na ci problème ci gaal gi nga xam ne euh, waa ji bënn na ko ndax moom dafa ragal alam fàtte na ni moom bam ba mu juddoo ci ndox mi lañ ko sàndi woon yàlla mi ko sàmmoon moo nekk ak moom ba tey fàtte na ni yàlla moomu kat <laughs> fàtte na yàlla moomu doon ko wattu moo koy wattu ba tey kon loolu la ko xadir doon jàngal foofu Cheikh Aboubacar Diallo xadir dafay fàttali muusa ne ko ba ngay xalel dañ laa dugal ci kees rek sànni ci ndox ma te labuloo yàlla mi la téye woon nag ba tey mi ngi fi buñ bënnee gaal gi mooy ki nga xam ne mooy ki am kàttan sàmm gaal gi ba gaal gi du lab waaye dafa nekk ci péyeb sëriñam moo tax sëriñam nekk kiiraayam ba mu fàtte loolu ne ko aqatalta nafsan zakiyatan bi gayri nafs ci ñaareel bi moom fàtte na ni bam ñëwee Madiyan ba mu ñëwee Madian moom Muusa dafa naan dafa rootal ñaari jànq yooyu nga xam ne ñoo doon doomu Suaybu yi Suaybu ba mu ko woowee bëgg ko ganale dafa ne ko axsa annaka taqdi li ma euh, amiltu li bunayatik wa inna qawmun laa naamalu shay'an illa lillah damay bañ a ñëw sa kër dëkk fa nga di ma fay li ma liggéeyel sa doom yi te ñun ay nit lañ yoo xam ne duñ liggéey lu dut dañ koy def ngir yàlla duñ jël ab pay laa naxusul ujrata min al maxluqin duñ jël pay ci mbindeef tey Moussa mooy taxaw di wax sëriñam ne ko law si talat taxasta ajra xadir nag commencé di ko firil ne ko fa amma safinatu xadir nag di ko firit nekk ndax gis nga Moussa lii muy wax fii yëpp jaaroon na ci bu yàgg waaye dafa ràññeewul moo tax ci njëlbeen ma ne la xam-xam la bum xam waaye ràññeewut xadir ne ko am safina daal gaal gi nag fa kaanat li ay miskin ñoo ko moomoon ñoo xam ne dañuy liggéey ci géej gi ay lañ yoo xam ne dañuy liggéey ci gi fa arattu an ayiba ma bëgg ayibal gaal gi li tax ma bëgg ko ayibal kaana wara wa kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin gasba ndax dafa am buur bu nekk foofu boo xam ne bépp gaal gum gis muy gaal gu baax rek daf koy nangu ci jaay su gisee gaar gi am ayib mu bàyyee leen ko loolu moo waral ma def li moo tax mu ne falamma jaawazu mahallal malik raddu safinatahum ala xaaliha wa baqiyat lahum mu ne noonu laa koy def ayibal ko buñ demee ba dépassé fi buur ba nekk buur boobu di nangu ñoom ñu defaraat seen gaal rek dem ak moom kon benn ngi noonu fireeku na ñaareel bi mooy wa amal gulaamu daal xale bi nag fa kaana abaway muminayn abawaahu muminayn ñaari way juram ay julit lañu woon fa xasiina ñu ragal an yurhiqahuma tughyanan wa kufra mbeewte jàpp ko ak kéefar waaye juróomi loolu lañ ragaloon ci moom mu ne ko xale loolu nga xam ne rey naa ko xadir rey na ko xale boobu kat e, gis nañ ni dañoo gis ci moom ay màndargay kéefar te ñaari way juróom dañ ko bëgg lool xadir nag ragal ñaari way juróom yooyu murtat ci sababab xale boobu mu rey xale bi mu ne fa aradna an yubaddilahuma rabbuhuma xayran minhu zakatan wa axrama ruxma mu ne nag liñ ci namm mooy suñ borom subhanahu wa dina leen dina ko kuutalal ku ko gën fuuf koo xam ne moo koy gën a jege ci ruxum waaye ku ko gën a baax kon ñaara ngi noonu fireeku na ñetteel bi mu ne ko amal jidaaru daal miir bi nag fa kaana li xulaamay ni ñaari xale ko moom yoo xam ne ay jirim lañ ci dëkk ba ci dëkk boobu di Antakiya ci suufu miir ba dafa am kanzu dafa am ndàmb goo xam ne alal lañ fa suul boo xam ne ñoom ñoo ko moom te wa kaana abuhuma saalihan seen ñaari waajur ñu baax lañ woon ñoom amila lahuma ma amila salaahi abihima moo tax lam leen defal daf leen ko def ngir wa kaana abuhuma saliha moo tax laaju leen pay bi ko Moussa doon wax léegi nag mu ne fa araada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kandahuma rahmatan min rabbik sa boroom bëgg ñu jot maanaam ñu dem ba majeur jëlal seen bopp seen ndam loolu loolu nag biir mande bu jugee ci borom bi mu ne lii yëpp nag wa ma faaltuhu am an amri amul lenn lu ma ci def ci sama ndigal Cheikh Aboubacar jàlloo xadir bépp soppandiku bu mu def ci kanamu Moussa ndigalal yàlla lay demee jaam bi nag sañut boromam digal ko muy mooy ndigalam kon Moussa duut lam def duut njombe xadir lam def duut kémtaan waaye dafay exécuter li nga xam ne moom mooy ndigalal borom bi subhanahu wa taala Cheikh Ibrahima nee wa ma faaltuhu an amri rek doyoon na doo doyoon na tontu ci lii ngay laaj yëpp suba ba léegi mu ne aljawaab yakfi minhu haada wa ma faaltuhu an amri faqat haada huwa aljawaab lii rek mooy tontu bi innama faala ma faala bi amri illahi wa illa kawnu safinati li masakin wa ida lam yakun fiha aybun gusibat la yajuzu fi shariati qal'u alwayha mu ne li mu def nii rek mooy li mu wax nii rek wama faaltu an am bi defuma ko ci sama ndigal ci ndigalal yàlla laa ko defee loolu rek mooy tontu bi mu ne ndax gaal gi nga xam ne mis ay miskiina ko moom mu ayibal ko daganut ci charia benn yoon mu di ko def xale bi nga xam ne rey na ko ne dafa dafa dañoo njortu ci moom mu nekk yéefar ay waajuram mu tëddee ci sababam mu ne loolu fa ana tawiluhu wa ma faaltuhu an amri kon kullu shay'in faalahu bi amrillah lépp lu mu def rek ci ndigalal yàlla la ko defee nga gis ni wallahu indahu wa amrun batin nga gis ni yàlla dafa am ñaari mbir mbiram zahir ak mbiram batin yonentu bi nga xam ne mooy Moussa moo gàddu mbiram shariatu ki gàddu léeg-léeg ki tamit dina gàddu mbiram haqiqa di atte ci sharia di atte ci xaqiqa comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel moom ñaar yëpp moo ci doon atte moo tax ci qadiya bii nga xam ne ñu ngi koy jàng nii ci Moussa dinañ gis ni Moussa moo gàddu woon shariatu xadir ñëw di ko jàngal xaqiqa waaye yonentu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gàddu woon sharia ak xaqiqa kon loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ci xel léegi nag mu ne ko hada tawilu ma lam tasti alayhi sabra li mooy firig li nga mënta muñ muy lu am solo léegi nag Cheikh Ibrahima di firi mu ne Cheikh Ibrahima nee na fa araada rabbuka ngay gis ci wax ji ah maanaam fa aradtu an aibaha moo njëkk mu wax ñaareel bi fa araad fa aradna ñetteel bi yoon mu ne fa araad rabbuk mu ne munkir yi dañuy wax ni innahu qaala fa aradtu xuutiba fi sir anta al murid laa ana mu maanaam munkiruna dañuy wax ni kii di xadir dafa waxeeg Muusa wax joo xam ne tegginuwut ne ko yow ki soxla man soxlawuma wax jooju mu njëkk wax nag mu dabaatal ko ci aradna fa qiila anta mushariki fi hada ne ko man yow yaay sama associé ci yoon bi ñuy dox kon génn na ci mbir mu njëkkoon wax mu ñëw ci mu jég mbir mbir bi mu ne fa araada rabbuka sa borooma nam bàyyi nag ne wa min baabil adabi ci buntab teggin fal xadir xadir qaala awalan wax na ci njëlbeen ak mbiram fa aradtu an aibaha maanaam teggi na ko jàpp bam ne fa aradtu man xadir maa bëgg ayibal gaal gi mu ne laa yuhibbu an yusnida al ayba ila rabb ndax ayib boobu di dal gaal gi bu ko askanale yàlla ndax teggin gi nga xam ne moom la am ci kanamu boroomam subhanahu wa taala moo tax haada nuqsaanun fa asnadahu ila nafsihi gis na ayibal boobu yàlla sant ko ngir mu ayibal ko gaal gi gis na ni manqué manqué la mu askanale ko boppam walees boroomam moo tax mu ne fa aradtu an ayibaha comme ni yonent yàlla ibrahima wax wa ida marittu fa huwa yashfin su ma feebaree waxul soo ma feebar looyee de yow yàlla waaye su ma feebaree man fa huwa moom yàlla yashfi ni moo may saafara lam yaqul ida amrattani soo ma feebar loo te ñun ñëpp xam nañ ni yàllaay teg nit feebar waaye loolu teggin la boo xam ne nitu yàlla yi dañ koy waxe moo tax gis na ni feebar mu askanale ko boppam waaye li nga xam ne mooy shifa gi nga xam ne yiw la mu askanale ko boromam ñaareelu qadiya bi mu ne fa aradna mu ne li anna hadihi alqadiya jamaat bayna sharri wal xeyr ndax xadiya boobu nga xam ne mooy ray xale bi dafa boole ñaari mbir yiw ak safaan moo tax mu ne aradna li yakuna shar ilal xadir aradna namm nañ ay wi jëm ci ci xadir ndax moom moo rey wal yiw yi nag jëm ci borom bi subhanahu wa taala kon loolu moo indi naagi xadiya bu mujj bi nag mu ne fa araada rabbuk an yabluga ashuddahuma wa yastaxrija kandahuma rahmatan min rabbik zalika tawil ma tastati alayhi sabra sa boroom moo namm xale yooyu mag euh, ba jot seen ndàmb lool loolu di yërmande bu jugee seen borom nga gis ni fii dafa jël lépp delloo ko si borom bi araada rabbuk ndax foofu yiw rek a fa nekk defaraat miir bi ngir xale yi jot seen mbir yiw rek moo fa nekk mu ne ko nag lii mooy tëwiilu maa lam tasti alayhi sabra mooy firig li nga xam ne yow mënuloo ko woon muñ muy lu am solo gis nga lii nag dafay tegtale ni alquran dafa wàcc bi shumuliya al mutlaq maanaam dafa mat peeg lépp ndax mooy benn man manhaj boo xam ne moom la doomadama aadama ma mën a topp ngir dox mën développé ibaral xayaat nag ci giiru dund moo tax ar risala ya yi fi jaaroon yëpp alquran daf koo dëxañ ci biiram yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee wan yoon woo xam ne moom lañ war a suubu muy ay yoon nag yoo xam ne ñu ci bëri ñu ngi ciy jaar di gis ay résultat ndax ginnaaw yonent yi fi nekkoon dafa am ñu ñëwoon sos ci ay yoon yoo xam ne yoonu naka sudul noonu la comme ni ko alquran waxee asatirul awwalin ak tatabaha fa hiya tumla alay bukratan wasila loolu la e, yéeféer yi doon wax yonent sallallahu alayhi moo tax ñi nga xam ne gëm nañ ba soobu yoon yi nga xam ne yoon yu wuute la ngir sàkku shariatu dinañ am xam-xam bu doy ci sharia waaye nag war nañ sóobu beneen yoon ngir xam li nga xam ne mooy xam-xamu xaqiqa moo tax alquran biñu ñu nettali xissa bi nga xam ne dafa dox ci diggante ñaari jaamu yàlla yu tedd yu baax yoo xam ne seeni mbir dara wuute ci ñàkk déggante rek moom moo ci amoon waaye bañ demee ba déggante xam nañ ñoom ñaar ñëpp li ñuy wax benn la ndax xaqiqa chaque jour ñu wax ko mooy charia buñ dégg charia mooy xaqiqa buñ dégg moo tax ci biir xissa bi dañ ciy jàng lu bari dangay gis ni mu mutasawifuuna yi ñoom dañoo tënku ci ñeenti ponk yoo xam ne mooy seen arkaan asasiya yoo xam ne kenn mënta jëfe dara ci tasawuf lu dul ni danga ciy taxaw bu ci njëkk mooy ut sëriñ ut sëriñ mooy ki nga xam ni daf lay tegtal ci ay jëfu zaahiram xeetu jaamu yàlla yi njub ragal yàlla jikko bu baax waaye di la defar ci sa baatin ci nga bëgg yàlla sellal dëggu xam yàlla ba mën a jëriñu ci kàndoo bi ngay àndaaleeg moom ñaareel bi mooy taalibe bi dafa war a dëggu dëggu gi muy dëggu nag mooy dëggu ci xemmeem li muy topp waaye du toppe nii rekk ci laa bokk déedéet waaye dafay toppe ci góorgóorlu ci yoon wi nga xam ne la muy sàkku fa la nekk ñetteel bi mooy nga am objectif boo xam ne moyen la raaya moyen boo xam ne moom ngay viser ngir yegg ci te objectif boobu ñaar ñi ñoo ciy dëppoo muy sëriñ bi ak taalibe bi ñeenteel bi mooy li ñuy tuddee amaliyatul ittiba nafsuha maanaam toppe ci boppam moo tax faw soxbatu am képp ku képp ku la toppe képp kuy toppe nag te topp bi am objectif bu baax di nga jëriñu moo tax ñeenti ponk yi Eh, moom rek la yàlla di jàngale ci xisaak Moussa ak xadis wa is qaala Moussa li fataawu ba yegg si fii ñu fii fii ñu yem zalika tawil ma lam tastati alayhi sabra loolu rek lay jàngale muy lu am solo kon da gis ni muñ ak toppe mi ngi bokk ci mandarga yi gën a mag ci mandarga yi nga xam ne ñoom ñooy mandargay suxbatu wax ji nag amul lenn lenn lenn lenn loo xam ne daf ci def tanaqut wala taarut lépp lu jaar yoon la loo xam ne eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yonent bi jàngale na ko mu leer ci xisaak Moussa waaye boroom xam-xam yi ñëw nañ ko firi ci seeni dégg ndax alquran am na ay dégg-dégg yu wér yoo xam ne mën nga ko peese ci alquran mën nga ko peesewaat ci sunna kon da nga gis Moussa yi nga xam ne moo yonantob yàlla pour mu jot càkkutéefam faaw mu fàtte lépp fàtte dundam fàtte dundu sëriñam ki nga xam ne moo koy jubbanti moo tax kon nii rek la mën a demee gis nañ musa alayhi salaam àndante bi mu àndante nga xam ne mooy sëriñam muy dars bu am solo boo xam ne ñëpp ci war taxaw ci jàng ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne tafakkuruka ya aba bakrin xayrun min ibadati sabaina sana sa xalaat yow abu bakar xalaat bi ngay xalaat yàlla fàttaliku bi ngay fàttaliku yàlla sa xaatir ni koy dawalee ci yàlla moo gën jaamu yàlla juróom ñaar fukki at <coughs> loolu nag di wax ju rëy bi miqdaad ibnu aws ah, miqdaad ibnu aswad radiallahu anhu moo ko solo eh, muy xadis bu gudd boo xam ne boroom xam-xam yi solo nañ ko dars boobu nag ki nga xam ne mooy imaam as-salih al-husayn an nuri nga xam ne dund na ci xarnu saan yi jàpp xarnu saalis génn àdduna deux cent quatre-vingt-quinze ci gàddaay gi daan na ñaan ne allahuma qad sabaqa fi ilmik wa machiatik wa qudratika uqubata ahli nnar الذين خلقتهم اللهم فإن يكن قد سبق في مشيئتك الذي لا تتخلف أن تملأ النار min annaasi ajmain fa innaka qadirun ala an tamla'aha bihi bi waxdi wa an tadhaba bihim ila aljanna moom lim daan ñaan mooy yow yàlla sa coobare jiitu na ci sa xam-xam yu njëkk ya sa kàttan am nga kàttan pour mbugal say jaam yëpp fekkee jaam yëpp da nga leen bëgg dugal safara maa ngi ñaan man rek mën nga ma dugal safara ma fees ko ñu ci des ñëpp mucc dem aljana loolu déggin bu kawe la ci dégginu suufiyanke loolu nag liñ ci mën a jàngee mooy yonte yàlla Moussa mii nga xam ne gis na waa ji jëf yim jëf mu wuuteeg chariatu mu ne day xeex man man mu ne day xeex ñaawteef te fekk ni loolu mooy jëmmi rafet jëmmi taar moo tax ustaazam bii nga xam ne moom dafa nekk ci maanaam niñ koy waxee ala basiratin min al amr moom du def benn tasarruf du def benn coppandiku lu dul ni ci ndigalal yàlla la koy defee mooy li tëj wax ji wa ma faaltuhu an amri kon moom du dafay xool rek ci mbiram shariatu noppi mais déedéet dafay jëf nga xam ne mooy ndigalal yàlla moo tax euh, taalibe bi pour mu jëriñu faw nga natt ko faaw nga natt ko natt yu métti maanaam toppe dafa métti muñ dafa métti tey tamit ci toppe rek ngay gis loo xam ne da nga naan lii jomm nañu dëggal ko ñu mën koo dëggal ndax Moussa xadir lii mu def nii yëpp jomm nañu mën koo dëggal bu fekkee ci charia rek lañ ko teg waaye dafa am lu ñuy tuddee al ihaat al mawaraiyaat ay yenkawal yoo xam ne yàlla daf koy yenkawal nit ñi mu nekk ci ginnaaw xel loolu nag saa yu ci taalibe bi gestoo rek dina xam ni dëgg-dëgg li ko sëriñ bi wax yépp dëgg la kon lii lu am solo la lu ama am solo la lu am solo la jërë ngeen jëf